naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bilhaqi yuzanu naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun basirun liman نبيع عديب سعياء معصب نصير لمن بالكفر والسرك يعلن bokki jullit yi bokki taalibe yi boo leen gisee jataay bi nag ngeen xam ni nag daayira ba daan jug jugati na daayira ba daan laxasaayu laxasaayu na boobu daayira mooy ban muy daayira bi nga xamante ne ñooy ndawi Touba di daayira Mawaahiboul Akyaas daayira Mawaahiboul Akyaas nag buñ ko tuddee tuddi ndaw yi dëkk bi yëpp daayira boobu moo jugati fa seen def nam daan def at mu jot incha allahu rabbi di liggéey bu tedd bii di liggéey Xelcom di tool yi tool yi Serigne Saliou Mbacké yi nan ko daan defee incha allahu rabbi ci ñetti at yi ñu wees yëpp noonu ñu ko fas yéene liggéey mboolem koo xamante ni si daayira bi mi ngi àndan ak yow ak liggéey bi ci bokki julit yi bokki taalibe yi ak bokk yi nga xamante ne moom lañ ko baax àndal yëpp fas yéene def nag incha allahu rabbi ànd ko ki nga xamante ne mooy njiital bi ak bokkam yi yi mu ko baax a àndal yëpp di Serigne Moustapha Signor Lo mi ñëpp xam ci ci ci turu daayira Mouwahiboul Akyaas xam ngeen ni ren ji incha allahu rabbi daan def nan daan def togg nag ay ñam yoo xamante ni yu mucc ayib la berne yoo xamante tabarkalla ren jii nag ah ñu delloo nag mbatt ca booy booy ga fas yéene nag yokk liggéey bi nga xamante ni ndax liggéey Serigne Touba moom kanam rek lay jëm waay du jëm ginnaaw fas yéene na togg nag xéewal yu tak yoo xamante ni sii incha allahu rabbi nan ko defoon daaw ren jii nag daa yokk ren jii nag ñu war a togg nag incha allahu rabbi 65 mbana yi nga xamante ni si danañ ko togg ji jii fas yéene yokk jéego yi nga xamante ni moom la ñu nekkoon daaw ren ji dinañ ko yokk incha allahu berne yi nag façon togg bu ne incha allahu rabbi dina am ci mba mbana yooyu di 65 mbana yooyu ak lan lam baaxoo àndal yëpp berne do donge yi nga xamante ni ñoo nekk ci tooli Khelcom yëpp yu Serigne Salif Mbacké jox kaddu gi nag ki nga xamante ni mooy Omar Gueye Minoukaar mu wootu ci turu donge tarbiya yëpp bu nu noppee dinañ jox ki nga xamante ni mooy Ibra Sarr xasida mu ñëw def ko na mu ko daan defee at mu jot mboolem kun daan woo ci appel bi koo xamante ne daan na jàpp ci liggéey bi jàppale ko daayira bi Ibra Sarr ñëw tudd ñoo ñëpp wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente mu tedd bi doolee santaat Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké yàlla nañu ko yàlla fayal ngeen gi fay ñu doolee teewaat fii teewa jataay bu ñu neex muy jataayu xel Xelcom ñu ànd ko euh, kuréel gii di Mawahibou Akyas ñuy liggéey liggéey bu rafet baax ko liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ñun ñu nekkal leen ca bopp ba Eh, ànd ak ñoom ci liggéey boobu eh, ñu li ñuy rafetu liggéey bu baax a baax a baax ci ndigalul junior loo mi nga xam ne moo am initiative boobu jiital liggéey bi moo ko sa Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara eh, moom waroon naa ñëw sax xam naa dafa am lu ko tënk waaye waroon naa teewee jataay bii tey dañ daan baaxoo bu mbàcc mi masaa jub si ñu àndandoo togg ay ñam yu sell yóbbu ko ci tool yi daaw defoon nañ ko ci juróom fukki mbana ren yokk nañ ko ba ci juróom fukk ak juróom Euh, mooy 65 mbana incha allahu rabi ñuy ñaan jàll suñ borom kàttanal leen ci bañ yéene ji ñu am ci def ko suñ borom kàttanal leen bañ def ci lu faw ko seen bu ñu defee loolu pare benn dongo yi le 6 le euh, le 6 incha allahu bu buñ benn dongo yi pare bu loolu jàllee dañuy dañoo baaxoo jënd ay dàll ak ay basang ak ay euh, ay satala ak mboolem li dongo di soxla ci daara. dem jébbal ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke suñu yaakaar tey ak ëllëg yàlla na ko yàggal noonu la daayira bi baaxoo def muy liggéey bu sell liggéey boo xamante bi képp koo xamante bi Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke sab Serigne la wala muy sab soppe ñu ngi la ci woo ñu àndoo liggéey boobu liggéey bi li képp koo gis appel bi na nga xam ne liggéey bi sab liggéey la ñu ngi la ci woo incha allah rabbi ñu àndoo liggéeyal Serigne tubaa Serigne Saliou Mbacke ndax euh, dama koy wax rek liggéey liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke ku la ci woo dalaa bëgg a dimbali ba tax na appel bi képp ko gis na nga xam ne mooy sa invitation mooy sa mooy sa boote ñu ngi ciy woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay woo ci bis bi nga ñëw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi dañuy togg bernde yi buñ paree dajale bagage yi jëm ca donga ya dem jëbal ko sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou Mbacké di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou Mbacké suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootuk sëriñ Saliou Mbacké gépp suñu borom teg ñoom loxo ci barkeb seexul xaddim ñu ngi woo sama mbokki sama mbokki dongay tarbiya yi maa ngi leen ciy woo ñooñu laa waroon a njëkkee ndax ñooñu laa bokkaloon nekk ci tool yi ñu ànd di liggéeyal jëmm ju tedd jooju képp fépp fu ndonga tarbiya nekk mu ñu nekk ci réew mi mu ñu nekk bitim réew fépp fu ndonga nekk na nga bàyyi xel ne appel bi mooy sab appel suñu bis ñëw na liggéey bi ñu sëriñ bi dénk ñu moomal ko suñu bopp ñëw na muy mbàcc mi mbàcc mi nag dañ ko sëriñ bi da koo jël teg ko ci loxoy ndonga yi ñun ñooy baaxoo bàcc gerte gi roñ gerte gi roñ ngoon mi ci ba mu gën a selle defal ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké mu yeewe ñu ñaanal ñu ñu delluwaat ci yitte yi bis boobu nag at bu nekk benn yoon la cay doon ba tax na képp ku ci feeñ ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bu déwénee lépp loo ci jëfoon yàlla nga man lu ko ci barkeb Serigne Saliou Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi bu ngeen gisee suñ toogaay bii ñu ñëwaat ci woote boo xam ni euh, ci ndigalul Serigne Cheikh Saliou ak ci kilifteef Cheikh mun Mountakha ci lañ koy def waaye bu nu toogee nii rek ngeen xam ni lan daa woote ay ñoo xam ni ay kilifa lan rawatina ay soxna daa jàpp ci bis bi bu fas ne commencé ci lim ñooñu woote boobu nag ñu ngi ciy jiital soxna Nday Buso mu soxna May Galas moom sëriñ Fàllu waaye soxna li Sàll moom soxna Assu moom Serigne Fàllu moom it ñu ngi ko ciy woo waaye di ci woo soxna maam Faati mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdul Ahad waaye di ci woo soxna Faama Ndiaye moom it ñu ngi ko ciy woo ñu ngi ciy woo madame Ndour moom di kenn ci liggéey bi ñu ngi ciy woo soxna nday Guèye mu alaaji Moustapha Cissé Lo waaye ñu ngi ciy woo soxna Baali Jaxate moomit it soxna nday Buso waaye ñu ngi ciy woo soxna faatim loo moomit it ñu ko ciy woo waaye bu nu waxee góor wax jigéen bu ñu waxee jigéen wax góor kon ñu ñu woo ci góor ñi ñi nga xam ni ñoom it seet ñu jàppale euh, dongo yi ci liggéey bi ñuy woote muy koom ku ci mel ni Serigne fàllu mbàkke transitaire moom it ñu ngi ko ci woo ñu ngi ciy woo Serigne Lamine Ba moom it transitaire ngi ko ciy woo waaye ñu ngi ciy woo Serigne Moustapha Seck moom it ñu ngi ko ciy woo waaye ñu ngi ciy woo Cheikh Ndiaye Gaynde Touba moom it ñu ngi ko ciy woo Mars Ocas waaye ñu ngi woo Serigne Abdoulou kurus ca Bambey moom it ñu ngi ko ciy woo waaye ñu ngi ciy woo Serigne Basiiru Jóob moom it kenn ci kuréel gi ñu ngi ko ciy woo waaye ñu ngi ciy woo Serigne Xaadim Ja moom alhaaji Mouhamadou Lamine Baara moom Serigne Fàllu ñu ngi ko ciy woo waaye ñu ngi ciy woo Serigne Cheikh Gueye mi nga xam ni dendey baas moom it chaque année mu jàpp ci liggéey bi ñu ngi ko ciy woo waaye euh, bi ñuy wax ci turu jigéen ñi danoo wara tudd koo xam ne duñ ko fàtte ndax Serigne Moussa moo ne ma boo ci àggee nañ ci taxaw nga santal ñu ko te xam ne lu ñu liggéeyal Serigne Touba ma ngi ciy dugal loxo muy soxna moom i kebe moom Serigne Saliou ndax kat jëfam euh, ay jëf moo mën a yóbbaale wax waaye wax du yóbbaale jëf te moom jëfam ku ne xam na ko ci yoon wi li lu ñu wooteel Serigne Touba ak ci rawatina ci dongo yi rawatina kuréel gii di kuréel ak Akyas ñu bokk ci kuréel gi xam na ni mu ciy jàppe kon soxna moom i kebe moom Serigne Saliou ñoo ngi la ciy woo waaye di ci woo ñëpp rek képp kuy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ni le 6 la départ bi di ajjuma waaye le 8 nag mooy bis bi nga xam ni daayira Mawahibul Akyaas dongay tërbiye yooyu nga xam ni amuñu lu dul Serigne saaliwu ci njiital Serigne Saliou mu alhaji Mouhamadou Lamine Baar ak Serigne Moustapha mi ak Minikar moom Serigne Saliou ca la ni le booba ca la ni togg ay berne nag yóbbu ko ca ko kon na ci ñëpp bàyyi xel bis baa ngi noonu di wooteem xel comme woote liggéeyub sëriñ saaliwu noo ngi ñaan ko fa teew yàlla na sëriñ saaliwu faj see aajo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nag bis baa ngoogu nag noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ tubaa yàlla na nu ci yàlla yóbbu ak jàmm incha allahu rabbi mboolem koo xamante ni daal dégg nga woote bii nanga xam ni mooy sab carte soutien mooy sab lettre waaye mooy sag nag ak fàttali ak sag yëgle ni bi kenn du ko fàtte ndax tool yi nga xamante ni moom la ñu wootee ki nga xamante ni sii moo ko sosoon muy Serigne Saliou Mbacké du ku ni fàtte mukk kon nag bis baa ngoogu bokki jullit yëpp bokki taalibe yi bis bi daal ñi ngi ci woo wëllëre yi xarit yi am di jàmbi yëpp ak mboolem nag koo xamante ni soppeeb Serigne Saliou la ñu ngi lay woo incha allahu rabbi bu nu demee nag xam ngeen ni nag bu nu demee ci tool yi ba ñëw ah ci leen nag waajal nag liggéey bi nga xamante ni ci leen waajal ndab yi ak mboolem loo xamante ni dongo dina ko soxla ci daare xel koom ak mboolem daare Serigne Saliou yëpp nu ànd ak teg daayira bi fekk ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou nu jolloowaat ko addee jooju def kon nañ ko daan defee bokk yi bis baa ngoogu le 6 incha allahu rabbi tombe ajjuma incha allah mooy départ bi bu ko kenn fàtte noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou Mbacké nag képp ku ci teew yàlla na Serigne Saliou fat la xam ngeen ne Serigne Saliou ku mu fat doo fanaan biti bokk yi bis baa ngoogu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu